simila ay fan la ñu a corona ji le termine yéene kaa ne ci nekkoon président Marseille day Pape Diouf waaw daal dinay wuy ji boromam day inna lillahi wa inna ilayhi rajiun la ilaha illallah maa la ko wax jàngaloy corona jaa ko yóbbu dee mën na la démb ci ngoon la ci guddi waaw ca hôpital fan gële la ko defee moom gis nga président Pape Diouf dem na ba ñu brancheel ko fu muy nooyee allahu akbar assistance respiratoire ca lañ a yóbbu nag ci France googe waaw dama ne la am na benn avion day vol spécial la nga xam ne ambassade France ci Sénégal day ñoom ñoo ko joxoon waaw njabootam nga ca boppam waroon nañu koo fekk ca doonu Niis Allahu akbar termine yéene kaay ne Sénégal day waaw daal di nay dund nekkoon neem gu njëkk ci jàngoroy coronavirus gi le soleil yéene kaay ne virus ba day waaw daal di nay jël kii di Maba Ba Pape Maba Ba Diouf loolooy turam ñu naan ko Pape Diouf critique yéene kaay ne Pape Maba Ba day ah, ah daal di nay ñàkk nag jongante mu mujj ba mu doon xeex a bakkanam Allahu akbar laaste Pape Diouf day jongante mu mujj ba kon ñàkk na ko Allahu akbar bi lée eh, waaw mooy nit ku ñuul ku njëkk laa la wax koo xam ne nekk na a président wu club bu nu tàllu olympique de marseille waaw nekk tamit journaliste sportif nit ku ñuul nekk tamit agent joueur la te Pape Diouf mi ne nag ay ndaanaan dëgg la yoroon ñoom Marcel Desailly François Omambik Bernard Lama William Gallas Abidi Pelé Rigobert Song Grégory Coupé Sylvain Armand wala Samir Nasri critique yéene kaay ne te gis nga Pape tey waaw kii la Bernard tapi xool ba ci covid-19 te de yóbbul nañu suñu paba libération yéene kaay ne sa ba xul ma doomu jàngoro ji la yóbbu na Pape Diouf la tee mooy yéene kaay ne Pape Diouf day bu daanu fii ci Sénégal allahu akbar leese ko yéene kaay ne Pape Diouf nag dafa feebaroon de lool évidence yéene kaay ne yegg nañ nag ci jamonoy musiba gi l'état macabre allahu akbar Dakar Times ne mooy Sarr waaw daal di ne indi nag ay gini de ci doomu Sénégal yi nga xam ne kon ñu ngi de ca bitim réew gars yi kat ku dee ñu ne corona baa la rëy bitim réew mooy Sarr ngay woote responsabilité yéene kaay gi ne région Fatick de daal di nay def nag juróom benneelu région yi nga xam ni kon ñoom la jàngoro jooje daal di ko laal ginnaaw Dakar Thiès Diourbel Ziguinchor ak lii di ndër géej bok sobili ak laas ne xanaa xamoon ne Dakar njaay jël yóbbu gi waaw nit ñi nga xam ne ñi ngi dem ak dikk lii waaw léegi ñu fat leen di fa ñu jëm léegi ñu tëj leen docteur Cheikh Sadbou soxna de ci enquête yéene kaay waaw nee na xool leen Marseille ba démb fan ak benn benn nit ni ngi leen di traité la ñu teg bët fi mu nekk nii ak mbeddi tribune de xiif gaa ngi yóot réew mi mar taali ñi xam ne maanaam ñoom ñoo nekk ci kër de xiif gaa ngi commencé di fa dugg nag laa la wax te nag bu leen jàpp nag jafe-jafe bi ndakaaruñ jaajël job kese la dee dama ne la yeneen gox yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir réew mi yëpp xiif gaa ngi commencé di leen yot demal ca diwaanu Matam gee am na ci ay village yoo xam ni kon ña nekk ca booru dex ga Sénégal ak Mauritanie waaw dama ne la lekk gaa nga commencé kon di ñàkk foofee te am na yeneen gox yoo xam ne ñu nekk ci biir réew mi tamit jën ak yàpp waaw dama la amatu fa la ko indi nag mooy dem beeg dikk bi diggante région ak région te nañu fépp ñàkkum jën googe moo am ca Tambacounda ak Diourbel Kaolack Kolda ak Sédhiou ak Fouta sax yéeni gi ne ñàkkum kaaraange de la faim à l'insécurité Babacar Mbaye Ngaraaf ne gis nga sunnaay xeex corona jile warta tegu ci kaw farataay lekk gi sunnaay wér gu yaram farataay lekk waaw Babacar Mbaye Ngaraaf yamu ca ndaxte waaye gi nee na gis nga ndimbal li nga xam ne tam maanaam ñu koy jox ni géej gi lée séddale gi daa war a leer gestion bi daa war a dëgg la ci xaalis boobu waaw lépp lu fa génn jox nit ñi bis bu ne dafa war a leer bilan journalier comme niñ koy defee ñi feebar la a médecin bi waaw ndekete caisse de dépôt et fa lañ ko jàppee ci Cheikh Ba waaw gaa yooyu moom la jëloon de ngir mu leen defal ay test yooyu waaye ñaari test la fa def ak ay enquête institut Pasteur ci la madame Diallo xool facture bi ak lii ne lii daal lëndëm na noonee la gaa yi laajte kon institut Pasteur ñoo ñee ne leen déedéet loolu jógeewu fii ñu daal di ootalaat Amadou Samba ñoom waa caisse de dépôt et waaw mu daal di dugg siwaat ne day waaw ci affaire docteur Samba bi waaw évidence yéene kaay ne Serigne Mboup day joxe na téeméeri million ak ñaar fukk maître Nafissatou Diop Cissé tamit de soobu na ca xeex ba critique yéene kaay waaye Tahirou Sarr de waaw daan nañu Tahirou Sarr un milliard la joxe la ilaha illallah source année district sanitaire yi day waaw téeméer boo jël ñeen fukk ca ña fay liggéey yëpp wàll nañ leen maar di tali la ilaha illallah réew mi ko yéene kaay ne waaye gis nga loi Macky yi dañ d'accord ci digg bi laa la wax bi bu mi ko votee dañuy violer laa lay wax nii caatum réew mi di constitution bi article 77 am Moustapha Diakhaté ne bu ñu seetaan coronavirus gi la daal di ñuy jural nag ab dictature jimboori buur bum mi bum mi Abdoul Mbaye waaw nee na yéen député yéen laay waxal bu leen may Macky Sall mi fu mu bettee suñu constitution bi da koy bett de Guy Marius Sagna ak ci 24 heures procureur waaw nee gis ngeen l'état d'urgence daa tekkiwul nag ne leen fi jëlee jubal ak ak yellee fu doomu aadama yi nga football leeral gii ci lu jëm ci wàllum yorin gii nga football état d'urgence tekkiwul loolu de déedéet Ousmane Sonko ne dama ne loi bi daa waxul ne nañ leen jël président def ko buur laa la wax te xam nga lan moo ci gën a garaaw mooy amendement bi nga xam ni kon garde des sceaux ministre de la justice daal ko ca def uh-huh. waaw parce que nee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 information waaw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 en temps réel.